comme ni ngeen ko xamé dafa am ben projet bu am njëriñ pour Sénégal bu projet bu porté ci engrais xam nga ku wax ku wax souveraineté alimentaire ku wax ba nga xamni do doonu soxlaa ci importer euh, lépp lu ñuy lekk ça veut dire que do doonu soxla produire ko fi localement tay bo xolé euh, Sénégal engrais yi ñuy utiliser yépp dañu koy importer donc. Euh, pour urée on a donné chaque année nous importer lu mat euh, tonnes 100 000 tonnes de urée par année euh, malgré ça l'État a quand même obligé de subventionner engrais beau. Euh, donc nous lu 40 milliards yoo chaque année pour permettre aux paysans sénégalais de faire a jot ci engrais boobu boo ressources naturelles du pétrole du gaz au delà de li nga si am soko ko li am importance moy nga mën ko transformer valoriser ko au niveau local c'est-à-dire fi nga nek fi Sénégal donc lool na ni si loolu projet bobu nan nek pour que ñu mën a euh, jot nu soxlaat importer suñu gaz au contraire euh, suñu engrais ñu mën ko exporter donc amna ben usine bu mag bu ñu bëgg dafa euh, au niveau de Ndayane lay nar nek usine bobu am nañ si yaakaar daanu mën produire nous 1,2 million de tonnes par an. Si vous avez 100 000 tonnes, nous avons ici au Sénégal. Les des exporté. C'est-à-dire que nous avons des importé engrais, nous avons exporté. Nous avons exporté, nous avons exporté. Si nous avons Mali, Burkina, mais aussi nous avons visé le marché des euh, États-Unis et Brésil. Donc, nous avons un projet pour nous projet qui est pour c'est un projet qui investissement. C'est 1,5 milliard de dollars. Vous avez 1,5 milliard de dollars. Nous avons l'équivalent de 1 000 milliards euh, de, de francs CFA. Donc, mon projet est le plus important au Sénégal ou au Sénégal. Donc, euh, pour développer, nous avons fait une étude du Barré Unidef avant de nous étude bi nga xam ne tey moom lañ doon restituer mooy étude bi la bi ñuy jox marché bi pour ñu xam dans le détail marché bi lu mu soxla galaa nga mën a jaay dara il faut nga xam clients yi ñoom lan nu soxla donc euh, étude boobu ñu def ñu am si ndimbalu euh, benn euh, état Royaume-Uni Angleterre ñoom ñoo nu jàppale si def étude boobu ñoom ñoo fay consultant moo tax ambassadeur am nekk nii suma wet

dem ces phase finale bi pour ñu décider Sénégal décider def investissement boobu mais investissement boobu mënul ñak am parce que mën wax développement bu féké ni au moins li ñu lekk euh, importer tuñu ko donc lool moy Sénégal yépp loolu euh, ñu bëgg que ñu bañati di soxla di importer donc autosuffisance alimentaire souveraineté alimentaire yooyu yëpp ce sont des concepts yo xamni ñëpp xam nañ ko donc dafay mën a réalité avec tey bu féké ni amna ñu usine urée bobu donc lool motax vraiment tey mu nekk euh, bésu mbégte pour ñun avec accompagnement wu euh, Royaume-Uni avec accompagnement Manufacturing Africa ba ñu mën def ñaari études projet boobu noonu kañ lay effectif fii Sénégal. donc am nañu yaakaar ni deux mille vingt neuf en deux mille vingt dina usine bi dina mën a donc bu ñu waxee usine bu mel noonu c' beaucoup d'emplois c'est c' est loolu nag moo tax ñuy wax industrialisation loolu moo ñu mën a wax développement donc euh, am nañu yaakaar fii rek deux mille vingt neuf usine boobu dina mën a ko pour tabax déjà il euh, y aura beaucoup d'emplois et après pour Diko opérer aussi il y aura il y aura beaucoup d'emplois donc si suñu yaakaar daal bari na c'est un projet Euh, vraiment nous sommes ni euh, unité flottante bi wala dem GTA di au nord entre Mauritanie et Sénégal Et si depuis samedi donc fi mu nekk nii Vraiment, il y a wax mooy vraiment yaakaar bi nu amoon si euh, date yëpp yaakaar Euh, xalaat na ni ba tey daan ko mën a respecté mu aussi euh, mu profité si wax ni euh, pour pétrole bi parce que boobu pour gaz bi GTA mais pour pétrole aussi am na ni yaakaar ni on va pouvoir respecter calendrier bi ñu tegoon donc daal am na nu yaakaar ne gilaaw avant fin d'année bi daanu am commencé suñu exploitation bi pétrole bi gaz pour que ñu mën a aussi développer tout ce qui est valorisation di pétrole et di gaz donc loolu mooy sunu yaakaar vraiment euh, yal na bu yaakaar tas